Madeleine ma belle. comment vas-tu naka ça va ça va très bien. Oh, plaisir comme on était en train de le dire tout à l'heure de se de te recevoir aujourd'hui dans notre mm et Mota live ciné donc yàgg nañ ko bëgg ma chérie parce qu'on mm -hmm. sent dañu fil li ngay def bu baax a baax et on est en train de ressentir l'effort que tu es en train de faire pour le mener à bien parce que nekk business woman yombul mais nekk business woman ba pare boole ci yenn activité yi loolu dafa am solo bu baax tu mérites d'être applaudi alors ñu bàyyi la nga nuyoo ma chère. salaamaaleykum tout le monde maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di dal ak jàmm rek parce que yéen ñu waxtaan ak yéen. <laughs> ah mais c'est top c'est top de chez yow. ça plaisir ma chérie. le plaisir est partagé vraiment. parce que déjà dama leen di suivre ngeen def ay live yu neex. nekk yow. yow tamit yow tamit yow tamit alors plaisir partagé donc. Euh, euh, euh, tu nous as fait plaisir dans différentes façons aujourd'hui dans dans des rôles que tu réussis à à à jouer merveilleusement bien. Mm-hmm. c'est excellent donc de Karma à Impact xam naa bu dee dafa am ñu fàtte ñu waxtaanee ko. Mm-hmm. mais est-ce qu'on peut venir aujourd'hui au début. au début euh, de euh, de ta carrière dans le cinéma un peu est-ce que tu t'en rappelles qu'est-ce qu'on peut retenir euh, de ça alors cinéma moom dafa nekk loo xam dama ko mës a bëgg depuis que j'étais petite mhm. donc ma si doon sonal sama yaay et tout ça mais xam nga rek au début moom ce n'est jamais facile les débuts son toujours durs mhm. mais bon nee nañu début bu naqadee rek après li ci des dafay neex donc du coup may ñëw Dakar parce que man je suis Saint-Louisienne Mm-hmm. Euh, donc Saint-Louis laa dëkk après si laa ñëw Dakar commencé dugg mais pourquoi mm-hmm. pas ma ma jéem a lancé wu ci euh, mo affaire du cinéma ci laa dugg mm-hmm. noonu comme mm. ah, de Saint-Louis à Dakar comment ça s'est yeah. passé cette transition parce que c'est un peu compliqué de quitter sa ville natale et surtout euh, quitter surtout pour dem liggéeyi ça peut être compliqué et difficile à percevoir au début surtout mm en tant que jigéen ce choix est-ce que c'était difficile de ta et de la part de, la, de, de toute la famille. Effectivement, c'était difficile parce que bon, ma mhm. mère mm -hmm. n'était pas du tout d'accord au début. Mais après, par la suite, si l'année m'a ah, demal essayer avec Bokol, mais si ou du borom, déjà, beau doublé, tu milieu cinéma, il faut que tu, il faut s'attendre à tout. Nous n'aimons pas, am rôle, nous n'aimons pas le codeur, c'est derrière pour, comme c'est derrière bar, nous n'aimons pas le rôle. Franchement, li gis ni que franchement yaa ngi jouer et tout donc euh, c'est pas facile après bon sama yaay comprendre ma maintenant affaire bu seetaane day reetaan parce que danaan est-ce que kii moom la <laughs> donc c'est passé. <laughs> c'est euh, c'est le cas de tout le monde. parce que ñu invité je me souviens de am na ku ñu doon Euh, euh, série yi du ko dem dafa dem ba du ko dem sax du ko seetaane ci en famille et tout ça donc bu ñuy diffuser day dem mm. <laughs> du toog et tout ça ah, donc euh, si je comprends bien Karma c'est ta première production non avant Karma duggoon naa ci benn série boo xamante ne waa Marodi ñoo ko defoon mooy seen première série avant Pod et donc ay sketch la woon en fait mm-hmm. pot moo ma ci dugaloon d'ailleurs maa ngi koy nuyu sax xam naa bu seetaane live donc ci laa duggee euh, mm-hmm. Marodi mm-hmm. par la suite bon commencé liggéey nekk sama activité ci la dellu si ci affaire cinéma alors donc euh, nga jóge Saint-Louis ñëw Dakar pour euh, poursuivre ta carrière dans le cinéma sénégalais tu nous as en dans le rôle que tu as joué dans Karma un rôle vraiment adorable une grande sœur euh, mère de famille. très au soin di lijjanti magam di toppatoo jëkkëram comme il se doit. ñëpp ñu ne mm. ah kii de moom vraiment c' est très bien kii de moom ku ku a roy la en tant femme. waaw impact ñëw. impact ñëw nga interpréter complètement le contraire. la mm. dame qui ne veut pas s'investir celle qui a son sugar daddy E avec son chauffeur celle qui prône la polyandrie e, sañu ma ko sax wax donc cette interprétation de deux rôles là complètement différents comment ça a été le travail sur toi pour euh, interpréter ces deux rôles là euh, alors pour Karma c'était pas du tout difficile parce que bon une partie de de euh, Nathalie c'est moi parce que j'aime bien quand je suis avec mes amis di leen topp di xool ndax elles vont bien affaire yooyu noonu donc loolu c'était pas un problème c'était facile surtout j'ai facile de de bosser avec euh, Yesna mesiwul mm-hmm. woon mais par contre Fat euh, kii euh, impact impact c'était au début vraiment c'était dur donc El Hadj moom a si dimbali mooy réalisateur bi c'était c'était pas facile du tout ndax rôle la boo xamante ni dafa jafe pour nga interpréter ko ndax nekkul man carrément Fati elle est folle elle fait tout ce qu'elle veut gëmul dara gëmul kenn tu vois amul sa xol limite mais mhm. derrière tout ça am na luñ ko def loolu moo tax mu waral mu changer bi mais rôle Fati daal yombul yombul du tout. ouais yombul c'est difficile à encaisser. d'ailleurs ah dinañ ci euh, un peu vers tu viens mhm. dans la série Karma tu retrouves euh, une famille tout à fait jeune comme toi. Donc, mm de jeunes dames, comment a été euh, l'interaction C'est-à-dire, euh, au début, tu viens, tu fais le casting, ça passe bien, après tu dois retrouver des gens. Comment ça s'est, comment ça passé Alors, casting bi, naka la demee dañ ma woo pour ma ñëw mardi def casting il y avait des gens ma dem passe casting après ñu ne ma dinañ la woowaat ñu ñu xool ba xam. après bon ma def ko mu jàll ñu woo ma après si laa dem jouer rôle lu Nathalie bi. Mhm. Mhm. ok kon vite fait nii rek mu jàll. une fois waaw vite fait <laughs> une fois waaw vraiment une fois laa ko. une fois rek nga jàll dem jouer. <laughs> en même temps Nathalie elle n'avait rien à foutre. lu dul di topp seeram di ko ah, looy def nii defal nii defal nii. <laughs> waaw waaw lu tax mu yomb noonu da nga xam waa Marodi wala da nga xam pot et cetera moo tax mu yomb noonu. non bizarrement jour bi may def euh, casting bi y avait pas donc euh, mhm. ay yeneen nit ñoo fa nekkoon ah mais pot xam naa ko juste bien avant série Pod et Marichou. laa ko xam mhm. parce que jot naa joué foofu bay na série. xëy na peut-être ñu mhm. garder sama sama kii. sama photo foofu mais après bi bi kii amee nuñ koy xotee waaye bi ñu defee casting bi si lañ ma woo ni ma pour que ma ñëw ma dem essayer xool après j'ai essayé mu mmh. parce qu'en général les castings de films là c'est très très compliqué beaucoup ne croient pas forcément que le talent peut être révélateur mën nañ la jël y en a mmh. qui pensent en fait que c'est mieux de les connaître et cetera moo tax c'est important de préciser ce point là. Beaucoup de gens dans les commentaires euh, sont en train euh, d'intervenir. Merci beaucoup. Il y en a qui sont en train de demander fan de Ndar, etc. Si tu peux revenir sur ça aussi. Bien sûr. Euh, alors, maman est de Saint-Louis, Balakos. Balakos laa dëkk. waaw nee na Balakos la dëkk xam naa ne waa waa Saint-Louis moom kontaan nañ d'autres aussi sont en train de te féliciter dans les commentaires. ki nee na Fati Séré Impact bi je suis fan de toi ma belle il est euh, mauritanien donc juste pour dire en fait que euh, série bi dem na fépp te boo fasee ba dugg ci cinéma bi. Mm-hmm. nit ñi dañ lay bëgg du doon sénégalais yëpp parce que dañuy euh, gis sa bopp ci li ngay def. donc nga intégré sa bopp ci famille Karma ñëw retrouver des acteurs qui sont tout tout aussi jeunes pour la plupart. effectivement et sénégalais l'insertion euh, la sociabilité n'était pas trop difficile. non franchement li ma gën neex sax si euh, série Karma xam nga Karma dafa am impact am Karma da ngay ñëw tu retrouves une nouvelle famille aussi mais jeune comme ni nga ko waxee léegi ñëpp presque la moitié bi yëpp ay jeunes la ñun ñoo tolloo et tout ça et puis euh, man defuma casting avec les filles mais franchement elles mm. sont super sympas ba te ñuy gisante et ça là donc c'est une famille quoi ok euh, hmm. ok ok donc euh, euh, ñu euh, gis aussi dans Impact nga nga retrouver une famille tout aussi différente donc pour la plupart qui ne sont pas sénégalais pour la hmm. plupart qui ne comprennent pas la langue wolof voilà. pour la plupart qui ne comprennent pas forcément nos mœurs hmm. comment tu vis avec comment vous vous entraînez pour trouver cette synchronisation parce qu'il le faut en tout cas dañuy gisante dañuy gisante lu bëre on sort mm. ensemble dem restaurant pour. Euh, vous sortez ensemble oui oui on sort tous ensemble. avec qui. ñun ñëpp. mais <laughs> permets d'être permets d'être comme permets-nous de de comprendre derrière les lignes. Donc, tu sors avec qui et, eh, Elle sort eh, avec quelqu'un eh. euh, ngi lay woowee gis nga waaw pas peur. Tu sais, c'est pas une honte de sortir avec quelqu'un. <laughs> non léegi attends ma wax wax bu leer parce que non lii c'est pas normal dañuy génn bokk ñu ñëpp équipe bi ñu ñëpp. des fois dañuy génn dem restaurant c'est pour permettre jeu bi gën a yomb parce que xam nga comme dañuy jouer bu ñuy génn lu bare <laughs> kon man. dañuy génn parce que bu ñuy génn en fait des fois dañuy pare tournage. là tu ne sais plus là tu es en de fuir là là tu ne sais instant bi yéen yéen génn ngeen impact de yéen a ngi feneen man du ma tontu xam nga impact rek. non impact bi la. c'est-à-dire pour nous c'est toujours l'impact ah c'est toujours l'impact d'impact. Euh, il nous arrive de un peu euh, éclaircir les questions pour nos internautes donc pour muy leer oh. il faut que nga xamal ñu kan ngay génn le plus euh, ci biir impact. non en série bi génnuma ak kenn de ci biir impact. est-ce que yéen a may dégg bu baax dama ne. mais yow wax léegi ne da waa dañuy en fait dañuy génn ñun ñëpp dañuy comme sortir ngeen quoi dem boire un verre xam nga le fait que ñuy génn noonu dañuy permettre suñu jeu mu gën a yomb parce que nit ki mm. par exemple tu retrouves des gens yoo xam ne xamoo leen série mm-hmm. moo leen di boole donc bu ngeen génnee bu bu bu ngeen joué ba pare après dañuy génn dem restaurant toog waxtaan bi rek duggante bi day permettre prochain jeu bi mu gën a yomb si ñun day fekk tutoyer nga nit ki ba pare xam nga naka mm-hmm. ngay moom prochaine fois Donc, ça te mm -hmm. permet de rectifier certains, de, certains on le sent. On sent, en fait, que plus vous avancez, plus ngeen di gën a nekk, plus jeu bi di gën a leer. Et euh, euh, euh dès la première scène, c'est-à-dire dañuy gis, en fait, le ah, travail que les personnages sont en train de faire tous ensemble uh-huh. avec leurs différences pour réussir les séquences alors ñoom ñu leen di dégg ñuy wax olof qu'est-ce que ça te fait toi en tant que sénégalaise bon man ça me fait rire d'étrangers parler wolof dans une série euh, c'est magnifique parce que c'est un mélange boo xamante ne nii euh, dafa neex quoi parce que ñoom dañuy jéem làkk wolof ñun bon ñun ñu ngi làkk français seen langue mais ñoom bu ñu làkkee wolof dafa ñuy def ay waaw et c'est beau c'est beau parce que c'est un mélange boo xamante ne ni bon ça donne quelque chose quoi. ça donne quelque chose et ça donne quelque chose c'est du bon c'est du bon que ça donne. un challenge que euh, la maison de production. Euh, s'est lancée s'est lancée. yow nga nekk une actrice de cette maison de production. Mm. donc euh, comment euh, euh, tu juges tu juges cet euh, effort cette grande innovation accompagnée d'un travail déterminé. que euh, Marodi est en train de faire euh, en tout cas Marodi ñu leen rek la ñuy def mooy ñaanal leen parce que nekk no seulement ñi fa nekk nekk nañu ay nit yu baax et puis dañuy gunge parce que la mhm. ça c'est très important da ngay dugg ci ay maison de production yoo xamante ne nii ñoom lu ñu xam mooy dañuy tourner rek heure bi léegi mu jot na heure bi jot ñu tourner rek mais euh, c'est complètement différent de de li may faral di gis man booy tourné dañ lay gunge soo defee erreur ñu wax la ko mais en cachette koi dañ lay woo wax la ko dans le respect toujours wala mhm. wax la ni la du nii beneen yoon nii ak nii la te loolu yombul des fois nit mën mhm. na la bàyyi sax nga wax ay ay du n'importe quoi mu bàyyi la ci biir après les gens se mhm. moquent de toi donc euh, ñu sant nañ yàlla ba ñun amuñu problème boobu ah man de franchement awma problème boobu te super toujours dans impact Excuse-moi, ma chère. Alors, toujours dans Impact, qu'est-ce que je suis malade, cette folle-là. Mm. Ah, toujours dans Impact, il est quand même nécessaire euh, que l'on parle de ce rôle. Parce que mm. je pense que si je ne trompe pas, c'est le rôle qui te, fait faire beaucoup d'efforts à cause de cette différence de personnalité entre mm. Fatih et Ora. Voilà, Aya. waaw dëgg la parce que rôle Faty nekk na rôle boo xam rôle bu metti la elle a le cœur brisé gëmatul dara lu ko neex lay def mu naan bu ko neexoon bu ko yàlla mayoon ñeenti jëkkër lay am xam nga kon quelqu'un qui parle comme ça elle est perdue mhm. xamul fan lay taxaw mais am na lu nekk ci ginnaaw loolu pourquoi elle est perdue mhm. donc loolu moo tax nag Faty histoire am nar am importance parce que elle a vécu pas mal de choses yoo xamante ni daf ko détruire donc du mi ngi ànd ak ay xaritam xaritam ñi ñu ngi dund mbëggeel moom ay reetaan la leen di def parce que elle est passée par là te échec rek échec rek la ci am. Euh, échec rek la ci am mhm. mhm. qui yoo xam ne. Euh, tu n'es pas la première et ne seras pas la dernière qui va susciter. le débat autour de ces faits donc euh, bëri na ay nit yoo xam ne même dans les commentaires même dans les questions dañuy wax mm. ne rôle bi ngay jouer le rôle de fatigue que tu joues dans Impact dañ ko dund Mm-hmm. donc buñ lay seetaan xam nga daf leen di marqué trop donc par exemple. Euh, bon après on va euh, revenir avec ça parce que il y a une comparaison intéressante après nañ ñëw. voilà donc mm-hmm. le rôle de Fati daf leen di marqué daf leen di mm-hmm. intéressé trop et c'est pour un plaisir. maintenant toi en tant que personne et depuis le début en fait de la série c'est quelle scène qui t'a le plus marqué et c'est quelle euh, dans le sens. de euh, c'est quelle scène en fait qui a été le plus difficile à tourner ci ci sa bopp. alors scène bi ma gën a marqué ak bi gën a metti bi ñu koy tourné mooy euh, sama scène bi ak Mike. parce que mhm. quand même da ñëw pour xuloo si ak koo xamante ne ni def la def lu la metti pendant des années. oui oui sorti de. Mhm. nga mu nga ëmb mu mu avorté loola ba pare di la mhm. traité de démon naan la li nekk sa biir bi bu juddoon tamit demoo lay nekk xam nga dafa nekk ay wax yoo xam dafa diis. dafa diis je je voilà je me suis mise à la place de Fati. ma xalaat tey mm. bu doon man la góor taxaw di ma wax genre wax yu mel noonu da lay def lu la metti donc c'était dur on a répété répété def nañ ko plusieurs fois ak réalisateur bi mu dimbali ma sax ma jàll mais franchement c'était pas du tout facile Voilà, nous allons observer euh, ah, suite de cette histoire? En tout cas daal Fatou li ma xam mooy elle veut vraiment se venger xam nga jigéen moom bu bëggee bëgg na mais bu bëggatul bu amee mhm. déception c'est fini c'est la guerre en fait jusqu'à la fin c'est-à-dire mhm. da ngay da nit ki te loolu moo dal Fatou dafa en dafa en euh, Mike ndax li mu ko def mhm. ko alors que Mike moom il est passé à autre chose mais il fait genre c'est ça sëkkeel sëkkeel yaa ngi fii donc du du yomb de. kon mm-hmm. ci histoire ci jàmm de dina ko sonal de. histoire bi ci biir euh, mën mën nañ xaar ngeen juboo. Euh, juboo moom franchement je ne sais pas mais lii ma gis instant bi moom vengeance rek moo fi moo fi moom lañ fi teg daal. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, situation bii ngay nekk di jouer. situation bi la mbaaj di teg man je maltraitance émotionnelle laa ko tuddee. effectivement booy use ba pare. donc mhm. dafa use sàcc. <laughs> de dafa use sàcc ba pare. Mhm. ah enceinte ko ba pare abandonné ko donc. Euh, di faire genre que les choses ne l'intéressent pas di continuer di maltraiter émotionnellement la fille situation boobu je pense que beaucoup sont en train de le vivre même si bu ñu demul ba ci état bu tomber enceinte et cetera et cetera qu'est-ce que mm. tu as à dire toi là je parle à Rita Ora à mm. toutes les personnes yoo xamante ne subir nañ situation bu demee nii ak góor ñi alors euh, man li may lance message bi may lance jigéen ñi mooy ñu def nang quoi dal dal def nang tey te xam ne dans ta dans la vie lépp lu war a am dafay am mais am na loo xamante ni yow yaa koy jéem a esquiver rek jéem ko moytu pour mu bañ la mm. dal. parce que mm. am na góor yu bon ah, parce que Mike ni mu mel nii am na góor yu mel noonu mais doo leen gis c'est-à-dire que da ngay dund ba keroog yàlla di la wan ak ñoom wala yàlla bañ la wan ak ñoom wan la wan la ay góor yu baax. donc mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ni am na pas mal de filles yoo xam ne envoyé nañ ma message di ma wax que ni ma dund nañ lu mel nii. dañuy jooy ça veut dire que nañ leen bu baax a baax. seen point sensible. très important. une petite brèche pour répondre aux questions. Il y en a beaucoup. Et euh, je rappelle qu'on avait euh, juste 30 minutes pour entrer euh, dans la vie de Rita Ora, Fatih de la série Impact, n'est-ce pas Et là, c'est une question très intéressante. Nena, ou Fatih Ou Fatih Karma ou Impact en euh, la bëgg laajte euh, karma. wala impatience. ce sera difficile pour répondre franchement. mais tous les deux rôles te te c'est ça parce que karma leneen la impact beneen affaire la. Euh, ok. donc ñoom ñaar ñëpp laa bëgg. kenn bëgg <laughs> yow sa xol bi yow sa xol bi daal ñu jël dafa kii. waaw. Ok. So, mais tu fais quoi dans la vie à part le cinéma? alors à part le cinéma man dama yëngu lépp ci lu jëm si wàllu beauté lépp luy dolli mhm. euh, rafetaayu jigéen c'est-à-dire mhm. jigéen di prendre soin d'elle di toppatoo boppam jënd ay produits yu baax di defar yaramam mhm. donc euh, voilà ci loolu laa yëngu alors alors nous allons euh, utiliser cette question pour faire notre transition et parler de Rita Kher yegg seegul pour parler de Rita donc euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de la suivre dans nos séries préférées mais en dehors de tout ça c'est une femme très très très entreprenante d'où est cette passion euh, de tout ce qui est mode et beauté c'est vrai que ku la xool moom dina gisee du hasard <laughs> mais euh, depuis quand tu as commencé à à entreprendre dans en ce sens là alors depuis 2014 laa ñëw Dakar mm-hmm. Mm -hmm. donc j'ai bossé pour euh, Absat aussi liggéey liggéeyal ay nit un moment après ma ne ah, pourquoi pas ma jéem a demal sama bopp parce que nit ki je pense que boo koy may jën tout le temps du xam ni ñu nappe il faut nga bàyyi ko mu mm-hmm. dem mu napp comme ça moom tamit mu xam yoon bi naka la donc c'est par la mm-hmm. suite que je me suis dit que mën naa dem commencer et j'ai commencé par la vente produit produits de beauté mm-hmm. après mu dox caler tuuti doxaat tuuti après par la suite ma est-ce que duma essayer greffage vu que on me demande souvent euh, ma ah, pourquoi pas essayer ma essayer depuis la page Rita Hair. ok lors comment tu trouves c'est vrai que beaucoup de gens entreprennent mais le plus dur en fait c'est euh, de trouver le moyen de vendre le plus dur c'est de maintenir le cap de son business. est-ce que c'est difficile est-ce qu'être une personnalité publique ça aide parfois. voilà yaa ngi toj TikTok bi. alors <laughs> euh, réseaux sociaux moom defe naa ne nekk na loo xam léegi yoon bu gaaw la pour pour pour pour jaay pour liggéey parce que dafa développé wu léegi euh, mën naa ne li ci ëpp moom moo ma aidé. Mhm. donc le fait que ma doon dugal ay photo ñu may laaj lii foo ko jëndee lii foo ko lii ma ne ah, xaa man tam ma ñëw commencé ko jaay comme ça ku ma wax foo ko jëndee man la man maa koy jaay. kon nga yow. <laughs> waaw <laughs> la te modèle boobu sax euh, euh, euh, dañ ci dañ ci a waxtaan. Ah, parce que man ah. en ma ko gën a mooy benn son benn ah, way bi ma ko gis. donc non non avant le son plus excuse-moi je donner le numéro. parce que y' a beaucoup de